yi sëñ Fallou jëkk nekk xalif xalif général des Mourides mosu ko màggalu Touba 1948 la ko door a waree Touba te li taxoon mooy de sëñ Modou Moussa dafay jógee liggéey jumaa ji taxaw sëñ Fallou bëggoon ñu reprendre ko mu woo Mouride yi pour ñu ñëw Touba ñu reprendre Mouride kon encore fois ñi nga wax. wax ak di leen jot li Touba. tax dara ci dara ci dara. ne bu fekkoon te ni da leen di woy di wut dara ci dara kon dina sàkkal wax barab di ne kon dina ba nawet ma def ko da leen di woo ngir topp digalu sëñ Tuubaa ak di leen woon na mu toll na ndigal lu toll woon ci moom ni ngeen dikkee nag neex na ko lool moom sëriñ bi dégg na ci ni ngi leen di gërëmal sëñ bi bu baax a baax ndax la ko sëñ Tuubaa santoon mooy li ngeen def da koo santaane woon nag booba mi ngi fi di ko doxal doxal na ko diir bu gàtt yàlla te mu dikk ci barab bu tedd bi suñ Modou Moustapha mi nga xam ne ginnaaw moo fi nekk notam doon na ko doxal moom itam yàggul man mii nga xam ne maa fi nekk léegi nag damaa def koo xam ne kii ngottuma rek bëgg naa rek mu yaatu yaatu boo xam ne mu yaatu yaatu boo xam ne lam ci lam ci bëggul la ci sëñ Tuubaa bëggoon lépp mu am ko ci ah mu am ko ci lam ci bële itam la mu ci bële itam ñëpp am ko ñëpp am ko ndax bu ma sañoon lu baax laay am lu baax laay am na ñëpp si ko ñëpp te bokk ko ñëpp bis bii nga xam ne moo tax bis bii nga xam ne sëñ da ko santaane sëñ Tuubaa da ko santaane muy sunu bis muy sunu bis ñëpp di ko fekk si damaa bëgg ñëpp di ko fekke si bu ko defee bu ko defee lan ci yaakaar ci moom lan ci yaakaar ci moom moom itam mu bëggal ñu ko moom itam mu bëggal ñu ko naa na ko am na mu ko bëggee ci noonu dina na ko am na mu ko bëggee ci noonu dama bëgg daal dama bëgg daal bi nga xamee ni bi nga xamee ni waa penku gële waa penku gële dañu fay daje ji dañu fay daje ji te tax ñu mën faa daje wala tax ñu mën faa daje jàmm ci kaw jàmm dañu am kiiraay dañu am kiiraay ma bëgg taw bi itam ma bëgg taw bi itam dañu penku boobu mel ni penku boobale ci kaw kiiraay li ñu am